mbokk jullit yi mbokk taalibé yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigalu sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ci kilifteef ak ci njiital sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke xalifa sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke njabootuk sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ibn Xaadima Rasul ñoo am mbégte di yëgle bésub fàttaliku bésub màggal bésub ñaanal sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke muy màggal annuel sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ñetti fan ci weeru septembre 2019 fa Touba ak jumaa ji muy ñaar fukk ak juróom édition bi programme bi ni lay tëddee dimanche ñaar fukki fan ak juróom ci weeru août table ronde di jotaayu waxtaanu diine ak ay borom xam-xam ci dund liggéey ak njàngaleem sëriñ bi ca kër sëriñ Cheikh Asta Walo Mbàkke ca Touba Daaru Salaam àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août 2019 table ronde ca kër sëriñ Abdourahmane fan ci weeru août 2019 plateau kër Soxna May As bintu sëriñ Abdoul Xaadir Mbàkke ca kër sëriñ Abdoul Baaxe Mbàkke ca marché Ocass dimanche benn fan ci weeru septembre 2019 conférence su sët yi ci buntu kër sëriñ bi li ko dalee 17 heures gi muy bésub sant di bésub pajum aajo àllarba ñetti fan ci weeru septembre la cérémonie officielle bi li ko dalee suba ñu di ko yëgal njabootuk sëriñ Touba gépp mbakkeeg bu soobee mbooleem ñi ñu bokkal maam maaram cheikh yi taalibe yi këru diine yi mbooleem ñu wala woon ak sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ci biir réew mi ak bitim réew di ko yëgal jumaa yi jàkka yi daara alxuraan yi jàngkatu xasida yi di leen soññ bu baax nag ci njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida yi ñuy addi social sëriñ bi bés bangoog ñaar fukk ak juróom-benneelu édition màggal sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ibnu Cheikhul Xadim quatrième xalif général des Mourides talaata ñetti fan ci weeru septembre 2019 sëriñ bi jàkkaarloo ak juma Touba.